yaa ko jaral jawaar ji alhamdulillah yeey waay eh. ay moo yaayu seex yee woowoo ay moo waral babar daay man daal tey rythme bii nga andi nag jaaxal na man de eh, ay pare pare ji ah man de dee dama jaaxle waxoo ma loo xëddee de man daal maa dugg ci biir léegi jot benn coup de fil coup de fil waaw gan gan gan gu mag gan déet waay gan ci gan yi yow fi mu nii am nga gan goo xam ne maa bëgg mu dem de eh ñoo bokk gan yi ah, gan ma bëgg mooy nga jug rek ah. ñu di préparé déet waay defar kër gi mu set bu fi dara taq bu dara tilim ba tey sax yàlla danoo nattu booy séeréer gàddu na ñeenti ginaar jaay dem na dafa wannkat bi xëy na dem xam naa lay doxal loo ci xamul nag ah. gan gu am xaalis jëkkër ji ci kaaw la ne kaaw gaaw la def bu ñu xëy rek bu tegee nga ni wu digganteeg yàlla. yow foo ne ah. lépp luy mbuus. sachet lépp. sachet waaw lu ne ci bi. waaw dégagel na dem. yow kay kay maag yow ñoom ba sachet. te loo ci xamul. Ah. bul mer de der reeta. moom kay fii laa commencé. na lépp set. mooy faj bu mu gàccee ci dëkk bi. na lépp set. jaay. damaa joxe dépasse. defal lépp. jàppal ni tey sa sa sa ndijaay. wuy ma wuy ma wuy ma. te loo ci xamul nag. Ah. amal jàmm. waaw changer comportement. changer naa ko changer waxin. ak a gaaw. yaa gaaw damaa bëgg nag ñu defar ndog tey fi lay ndogoo. fii lay ndogoo muy yéen. Ah. yow kay loolu dañ koy préparé. tey kon maam yi tey moom dinaa mel ni garde rouge yéen a fay. waxuma la garde rouge waaye apport damay dem tollu ji gaaw defaru ko ah de ci kon ci lay nogoo. lay nogoo déggoo ma xanaa. xoolal léegi kon mbaay maa ngi mille cinq cent. Andi ah, Ndiaye tey riis nga de da koy génne. démb dama xam nga àndaayu mille cinq cent <laughs> Baara Ndiaye laa dajeel mu tuuf ma ko. Baara mel waaw léegi. waaw waaye ma dem dindal la ko ba. léegi dawal man ma préparé en attendant ñu dajawaat. balaa ndogu léegi waaw deex na ban tey na bi xoolal. tey surtout pas. fenn ah waaw ndaxte lu olof Njaay naan sans waagi sans waagi ndam ngi si gàcce ngi si waaw loolu olof ko tey daal sans waagi damaa jóge woon sama kër la daane tey faw ma seet si la ah pour tey ji maa la ko wax de ndaxte gis nga yow dang nga di sama waay démb tey doo ko ñëw maag yow nag ba fële nag moom de yaa ngi dégg wax rek man ak aduma dog tey la ah, déet mën a koo a nga naan ko Eko waaw Eko xam <laughs> parce que Espagne dama fa yàgg man damaa newoon Espagne ba pare di nga Espagne espagnol waaw waaye nag comme tey jii nga ñëw ni mhm. daa fekk mu nekk bëccëgi koor gi. moo tax ma ñëw. jéet ba pare ma war a génn ñi am fu ma war a dem xam naa da ngay bàyyi ba pare seen week-end nga ñëw parce que programme wu ma ko daal. man emploi du temps bi may joobee programme la tax. waay waay waay li nga nag yow sama waa ji li nga may wax ni man xaw ma ko de. non non du caaxaan. ndax ngay seetee sa nan da ngay programme sa waay kay boo koy seetee jaratu programme yooyu tam. léegi réew mi moo doxe noonu. ginnaaw ba mu amee ay kii yooyu daal nit ñi dañoo déchanger programme foo jëm da ngay woote bala ngaa ñëw da ngay def aperçu affaire yooyu dégg nga. man de xooloon naa sama heure pour pour pour. fooy xooli heure. waaw waaw man gis nga yow man sama waay daal man nag man man daal bomb bi guerre ba ba léegi bàyyeegu la ah waaw yow bomb yan doon sànni ci guerre ba moo la bàyyeegul léegi mais yow it tamit xam naa ne yow tamit bàyyiwul non man bàyyi na ma léegi xam nga nu ñuy def xamaguma ko faaw ma dugg fii bu ko defee prochaine week-end nga ñëw fi ñu programme ko ndax fi ni daa am yitt yu ma war a dox ndax sama jabet ji war waraan a dugg si tànk war waraan waaw eh, ça fait location kon yow war waraan fàtte nga war waraan dem nga li nga doxal ñu dem. yow kaay yow mii gën a dëgër bopp. war waraan yooyu du war waraan yuy duggee. la. kooku daa am ku ko moom spécial moom laay dem xooli. bul teenkete wu ci faj bi dinañ ko faj. waaw ndagam damaa woor de xam naa ne du ma mën a bitt bitt. waaw waaw te fii yow naa dem ba prochaine. prochaine fois fois fois. Ah, hii moom de balaa wax fois rek daal ngénte yi jeex. waaw kay jaajëf. kon ah. xam naa nan déggoo rek dégg nga. yàlla baax dee ma woo dégg kër gi wóorul de daa am ay xaj ay ngandamal nit ak lu nekk fi dégg nga man daal su mu mënee yow de billahi doo gis heure loo xam kese doo gisee heure. waaw baax na ah man kan lii mosuma koo gis. waaw mii nag dof na bu yàgg xoola costume bu mu yëgal caayaam ci min ni wàcce kaayu parents yi. te sëñ nga ay kawas la ca teg di kii kóoram gi ba dina jàpp. ah